xew-xew bi nga xam ne kenn fàttewu ko ñëpp a ngi koy bàyyi xel muy guddik mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam muy juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga yonent boobu sallallahu alayhi wa nga xam ne yàlla wax na ci xaqam ne wa maa arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin yónnuñ la lu may nga nekk yërmaande ñeexal aalam yëpp kooku bés juddoom bés la boo xam ne mbindeef yëpp ñoo ko war a feetu ndax xéewal la pour ñeexal mbindeef yëpp ñi gëm ak ñi gëmut ñi topp ak ñi topput ñi ko xam ak ñi ko xamut nit ñeeg mbala yi sax mala yi sax yonent bi sallallahu alayhi xéewal la ñeexal leen ñu ngi fàttali ñëpp di wax ne gàmmu gi fii ci Medina incha allahu euh, dimanche lay nekk muy guddik altine bi nga xam ne euh, tombe bu rafet la ndax dafay tombe ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam altine la juddu loolu it beneen xéewal la ci kaw xéewal waaye tim nañ yaatal xol yi pour yaatal gan yi nañ yaatal kër yi pour yaatal gan yi nañ yaatal jikko yi pour yaatal nañ sàmm Euh, dëkk bi sàmmal dëkk bi liñ moom sàmm gan yi nga xam ne ñi ngi ñëw ñi ngi euh, fàttali tim autorité yi ñi nga xam ne ñi ngi ñëw pour gàmmu si ñi yombalal leen seen yoon ñi ngi euh, ndokkeel Sénégal yëpp ñi ngi ndokkeel kilifaay diine yëpp